أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين من قال ذكره الأمين لكربلي وجسدي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي saddid lisaani nawwir janaani safi amaani wazid baraa'i mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar rawatina bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci seen télévision mafatihul bisri tv tey nag ñu ànd ak yéen ci seen plateau spécial préparation julli géej gi nga xam ne moom la ñuy màggal 21 septembre ca Touba Las Vegas di ko defee ci université bu Nafeda ànd koog bokk yi nga xam ne ñoo fa nekk muy sëñ Sidi Mbacke ak bokk yi nga xam ne ñoom la ko àndal. tey nag seen télévision Mafatihul Bichri TV indi leen ci plateau spécial boo xam ne ñu ngi ciy ànd ak al oustaz Cheikh Mouhamadou Fadil Sarr mi nga xam ne yaakaar naa miin nañ ko ci seen télévision Mafatihul Bichri TV moom tam di jàngalekat di gëstukat. Eh, eh, yor daara ji nga xam ne mooy daara yi sunnatu rasul ji nga xam ne moo nekk ci Touba Lumizano mu feggoog kenn koo xam ne itam eh, moom it ñu bari miin nañ ko ci seen télévision Fatihul Bichri TV muy al oustaz Cheikh Diouf moom itam di jàngalekat di gëstukat yor daara ji nga xam ne mooy daara yi São Paulo ji nga xamante ni moo nekk ci Brescia euh, euh, euh, ci Brescia moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziar ñoom la ñu fas yéene àndal tey ci seen plateau spécial waxtaane julli gi nga xamante ni Sayxul Xadim julli woon ni ko ci kaw ci biir géej gi te mu nekk bis boo xam ne moom la bokk yi màggal foofu ci université bu Nevada ci Touba Las Vegas kon ba la ñuy dugg ci waxtaan wi dañuy jox Cheikh Mouhamadou Fadil saar mu nuyoog bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci seen télévision Mafatihul Bichri TV kon sëñ Fallou ñu bàyyi la nga nuyoog bokk yi aoudu billahi min asheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di rafetlu jataay bi nga xam ne seq nañ ko sunu mbokk Cheikh Wadane ak euh, al oustaz Cheikh Diouf ngir ñu waxtaane tomb bu am solo ci lislaam am solo itam ci yoonu murit muy julli gi nga xam ne sëñ bi julli woon na ko ñu fas yéene cee waxtaan kon dañuy delloo nuyoo sëñ bi di la ziyaar di euh, ñaan sunu borom defal ñu tawfiq ba lépp ñu ci wax mu dëppoog euh, li nga xam ne moom la ko sunu borom subhaanahu wa taala bëggee ay itam ñu dëppoo ceeg ngërëmul Cheikhul Khadim barakat Cheikhul Khadim. jërëjëf Cheikh Mouhamadou Fadil Sarr ci nuyoo boobu kon al oustaz euh, Cheikh Diouf ñu bàyyi la nga nuyoog bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci seen télévision Mafatihul Bichri TV. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk yi asalaamaaleykum kon ñoo ngi leen di nuyu comme ni ko suñu waa waxee e, comme euh, suñu ustaas suñu nattaangoo al ustaas Fallou Sarr mi bokkal jataay bi ak suñu waa mi nga xamante ni moo yore jataay bi ñoo ngi leen di ziare mbokk yen ñëpp te di leen nuyu te di ñaan yàlla tamit lépp luñ fi wax mu dëppoo ak euh, alxuraan ak sunna ak euh, waxi Cheikhul Xadim ndax bis bi ni mu ko waxee loolu lu am solo ndax julli dafa nekk loo xamante nii lu am solo ci lislaam la kon sëñ bi bu jullee woon ci géej gi tey jii ñu nekk euh, di waxtaan ci point julli kon loolu lu am solo la kon sëñ waa daan asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf al oustaz Cheikh Diouf ci nuyo yooyu jërëjëf Cheikh Mahamadou Fadri ci nuyo yu rafet yooyu di ziarewaat bu baax bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci seen télévision Mafatihul Bichri TV ak bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci Europe ak Afrique ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar euh, comme ni ñu leen ko waxee ci seen plateau spécial euh, lañ nekk ni muy waajal julli géej gi nga xam ne ñoo ngi koy def le 21 septembre ci université bu Nafeda Euh, li ko waral nag mooy julli gi nga xam ne sëriñ bi julli woon na ko ci géej gi moom la ñuy màggal kon al oustaz Fadil Sarr euh, ñu bëggoon a dikk rek ci tomb boo xam ne tomb bu am solo muy julli euh, maanaam importance bi nga xamante nii am na ko ci lislaam ak it jullitam wàccuwaay ban wàccuwaay la am ci lislaam jërëjëf sëñ Wadaan julli lu am solo la ndax sunu borom subhaanahu wa taala moo wane soloom si ñëw na ci alxuraan ñëw na ci xadiis julli bokk na ci solo si ponk la ci ponk lislaam te sax nag mooy kenu diine asalaat imaadu diin julli moom mooy kenuk diine maanaam bu fekkoon diine ab néeg la poto yi nga xam ne ñoo ko téye ba du daanu julli la képp ko taxawal julli kon taxawal nga diine képp koo xam ne nag mabbu nga euh, diine bañ ngaa julli mel na ni yaa màbbu diine te julli euh, dafa am solo lool ndax day tere def nit ki ak caay-caay ak lu bon ndax sun borom moo ne inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar julli day tere def nit ki lu bon te julli googu lu war la lu war la ci alquran moo ñu ko digal ñu war koo def mu doon farata bokk ci nga xam ne euh, dañ ka war dañ ko war a def ndax aqimu salaat waatu zakat bëri na lool ci alxuraan euh, lu war la ci alxuraan ak sunna ndax it xadis bu siiw boobu nga xamante ne moo indi ponk lislaam yi julli ma nga ca bunyal islaamu ala xamsin bokk na ca shahadat an laa ilaaha waaye wa iqaami salaat taxawal julli kon islaam Euh, juróomi ponk la juróomi kenu la waaye ginnaaw baati seede yi muy shahadat an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah taxawal julli moo ca topp kon loolu day wan ne lu am solo la kon julli euh, alxuraan indi na ak waram sunna itam indi na ak waram boroom xam-xam yépp itam dëppoo na ci julli lu war la kon euh, bu bu fekkee solos julli rek loolu rek doy nañu wax ca solo sa ba ci des itam Euh, julli moomu képp koo xam ne maanaam weddi nga ak waram képp ku weddi ak waram euh, kooku tax ci lislaam daf koy rey kooku dañ koy rey ndax julli dafa war képp koo xam ne dafa weddi ne julli lu war la ab yéefar la ab yéefar la euh, bokkut ak ki nga xam ne itam nag dafa weddi maanaam saxal na ne julli am na waaye Euh, weddiwu ko maanaam maanaam waaye du julli saxal na julli moom lu war la ci lislaam waaye du julli kooka moom itam des kay rey waaye bokkut ak ku njëkk ki nga xam ne moom dafa weddi ne julli amul ndax kële moom dañ koy rey reyuk yéefar waaye kii nag dañ koy rey reyuk gëtën foofu euh, Cheikhul Xadim radiallahu anhu indi na ci ay tomb yu bëree bëri euh, bu fekkee may nañu ko ñu dugg ci yooyu nga xam ne Cheikhul Xadim indi na ko ci ndax bu ñu demee ci téereb Sëñ Tuubaa bi muy tuddee tasawudu Shubbaan indi na ko ci indi na ko sax ci tasawudu sixaar waaye bayit yi ñu tiim mu ngi jóge ci téere boobu ñu wax tasawudu subbaan muy yóbbalub waxambaane yi dafa wax ne qad saxa anna salawaat alxamsa faridatun qataan waqiitum labsa bidikri wa sunnati wal ijmaaci lu wér la julli juróom faratala la ci lu dog alxuraan tudd na ko xadiis tudd na ko boroom xam-xam yëpp dëppoo na ci képp ko xam ne nag dafa bañ a julli ngir weddi ne julli amul kooku moo ku murtad ñooyam wala yaasu billah ku génn ci diina ji ñooyam kooku nag dañ koy tuubloo ñetti yoon bu tuubul bu tuubee ñu bako waaye bu tuubul nag dañ koy rey noonu la ko waxee euh, jaxdan laha fa huwa kal murtadi fi lxukmi yustataabu jiimal adi fa in yatub yutrak wa in lam yatubi naqtulhu bi sayfi bi darbi raqabi kon bu boobaa bu fekkee bañ naa julli euh, dañ koy dañ koy rey mu des ku ñaar ki ma waxoon te kooku nag buñ ko reyee reyub yéefar la kenn du ko suul ca jullit ña te itam kooka kenn doo ko di ko jublul xibla kenn du ko def li ñuy defal ab jullit bu faatu ndax ab yéefar la dafa génn ci lislaam mooy ki nga xam ne weddi na moom julli amut waaye ki nga xam ne nag nee na ki nga xam ne moom saxal na ne julli euh, am na waaye dafa bañ a julli te muy lu bari lool nag ci Eh, ci ci ci lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu gis ci mbokk yu baree baree bari ñu ci bari dañuy sàggane julli du ñu julli xam nañ ne julli lu war la xam nañu itam lañ ci wax waaye du ñu julli jóg eh, daw ay kilomètres yu baree baree bari moo leen di gënal ñu taxawal julli ñu jóg julli ñaari rakka te loolu nag lu doy waar la. wala sax na ko boroom xam-xam ba waxee woon ci mu nee na léegi eh, waxambaane jamono jii yëkkati ay weñ yu diis. ay poids yu diis moo leen gën a yomb yëkkati mbalaan mbàjj ci seen kaw pour jóg julli loolu nag lu day waar la xëy na mën naa am yàqute jamono ak seytaane moom mooy mooy waral loolu waaye nag ki nga xam ne nag léegi def moom saxal ne julli lu am la waaye dafa bañ a julli kooku te amul benn ngant ah, dañ koy bàyyi ba heure julli jot ngir yaakaar ne kat dana nangoo julli bu boobaa ñu digal ko mu julli bu fekkee bañ na ñu bàyyi ko ba waxtu wi des loo xamante ne benn rakkaa dong lañ ca mën a julli ci ñaari sujjootam ak ya ca ah, bu fekkee bañ na ñu bàyyi ko ba xamante ne mënee su caa diir boo xam ne mënee su caa jàng faatiha mënee su caa yemoo bu boobaa nag buñ ko dee jullil bu bañee ñu door koo rey ah, reyu gëtën reyu gëtën waaye du reyu yéefar ndax gëtën dañ koy yar ngir ay moroomam Euh, jàngee ci xame ci ne kat kon lislaam euh, fonk na julli ba kafewu ko moom la sëñ bi di wax wa man aqarra bil wujubi wamtana min fi'liha wala lahu usrun yaqa fa innahu muaxarun xata yaji waxtu salaati li xabulin qadru ji summa yu'maru ila an tabqa miqdaaru rakcatin faqat la sabqa bi sajdatayha min daruratin bila fatihatin wala ictidaalin uqila fa in aba xatalahu sul amri bi sayfi xaddan duuna xatlul kufri kooku sax buñ demee ba nga xamante ne looluñu wax àgg na bañ war koo rey bu rëcc woon ne sax ne bu ngeen ma bàyyi danaa julli dee suñu ko bàyyi ndax dañuy xam ne kon dafa ragal dee dong walaw tanaddama wa xaala afaalu li xawfi mahlakin fa lay sa laysa yuqbalu bu fekkee rëccu na ne kat ah, su ngeen ma bàyyee danaa danaa julli dee su ko bàyyi kon nag loolu liñ ciy tegtale mooy kat lislaam lu lu lu lu fonk julli la lu lu jox julli importance la boo xamante ne ah, kenn waru koo foye kenn waru koo sàggane ndax euh, li ci ndax euh, moom mooy li nga xam ne yoon saasam nee na moom la ñuy njëkk a xisaabe nit ki yowmal xiyaam bu nit ki bu fekkee am na lu ñuy régler ci moom yowmal xiyaam julli la ñuy njëkk a xool kon nag loolu warees na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, bu fekkee euh, kii na ñu jàlloo kàddu gi ba mu dellusiwaat incha allahu rabbi euh, des na sax ci solos julli bu ko defee ñu jaat kàddu gi incha allah. jërëjëf al oustaz Mouhamadou Fadil Sarr ci tomb yu am solo yooyu nga ñu indil lépp aju ci wàllu julli te lépp nag tege ci alquran ak sunna Euh, kon ci tënk rek dana doy xaddis yonent bi salaa salaam waxoon ni asalaatu imaadu diini man aqaamaha faqad aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin yonent bi doon na wax ni eh, jullikat mooy fondamangu diine képp koo xam ne taxawal nga jullikat taxawal nga diine waaye képp koo xam ne màbb nga julli maanaam màbb nga diine kon loolu ba tey di wane maanaam eh, importance ak solo soo xamante ni julli am na ko euh, sëñ Cheikh kon euh, julli ci boppam. Euh, aayaat yi nga xamante ni rot na ci alxuraan ak ak ak ahadis yi nga xamante ni euh, rot na ci maanaam looñ ci mën a indil ci wàllu julli. waaw bisimilah sëñ Wadane comme loolu nga wax euh, julli ci boppam alxuraan tudd na ko lu bari maanaam ay yu rot na ci julli ndax julli ci boppam bu ñuy xool comme ci loolu nga wax dafa am ci. noo xamante ni maanaam mooy ci jukko yi ci jëf yi nga xamante ni maanaam ak jaamu yàlla yi nga xamante ni léegi maanaam moo ëpp solo alxuraan àdduna ci ci ay ay yu bari mën nañ ci indi quelques ayat baada auzu billahi min asheytaani rajim qaala allahu taala wa aqimu salaata wa aatu zakata warkau ma ci suratul baqara aaye 43 mu ngi wax ni na ngeen taxawal julli joxe azaka te ngeen rukkoo ànd ak woy di sujjoot di rukkoo ànd ak kon loolu tegtal la waxaat na tamit ci suratul baqara ba tey baada auzu billahi min asheytaani rajim wastaciinu bi sabri wa salaati wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin yàlla mu ngi wax ci alxuraan ni yéen jullit yi na ngeen dimbandikoo ci muñ ak julli ndax kat moom lu rëy rëy la illa al xaashiina illa ala al xaashiina lu may ñi nga xamante ñoo ragal yàlla ñoo ñooñu dong ñoo mën a dékku mbir moomu muy muñ gi ak julli kon foofu mu waxaat ci beneen aaye ni wa aqimu salaata waato atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu inda allahi inna allaha bima taamaluuna basir ci suratul bàqar ba tey ci aaya 110 mu ne na ngeen saxal julli taxawal julli joxe azaka ndax lu ngeen def ci lu baax nee na da ko fekk fa yàlla ndax yàlla lépp lu ngeen di def yàlla maanaam koo gis la kon ñu xam ni kon ay yooyu rot ci ci alxuraan maanaam soññ nanu bu baax a baax ci julli te yooyu ay bennal la rek xam naa bu waxtaan wi gën a kii danañ ci gën a xuusaat ci yeneen ay alquran ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme loolu nga wax maanaam xadis bi al ustaas Fallou Sarr wax sànq ci buniyal islam boobu ala xamsatin shahadat an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi wa iqaami salaat la ci teg kon ñu mën a xam ni kon julli lu am solo la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laajoon nañ ko ci jën jëf moo gën mu tontu ne asalaatu ala waxtiha julli ci waxtu wa moo gën kon julli ci boppam kon dafa nekk loo xamante ne nii wa salaatu ahamu wasilatin min wasaili tahara wal xusulu ala al maxfira kon julli ci boppam buñ koy xool ci al alkitaab wa sunna mooy dafa bokk ci ñi nga xamante ni maanaam wasaaya mooy moyen yi nga xamante ni maanaam nit ki mën na ci am pour am jégal ndax benn xadis a ngi nii bu njëlee ci abi hurayrata radiallahu anhu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni araaytum law anna nahran bi baabi ahadikum yaxtasilu fihi kulla yawmin xamsa maratin hal yabqa min darani sayun yonent bi dafa wax sa alayhi wa ndax kenn ci yéen bu fekkente ne ak dex dafa nekk ci buntu néegam bis bu xëyee mu jóg maanaam ñëw sangu ci maanaam juróomi yoon nee na ndax kon ab téram dara dana ci des du ci des kon nag noonu noonu la julli mel julli ci boppam day fóot ay ay ay bakkaar te day raxas ay ay ñaawteef ndax am na beneen xadis dina ñëw ci kanam incha allah mu ni e, masalul salawaatul xamsa kenti moo wax ni masalul salawaatul xamsa yamxu llaahu bihinna al xataaya nee na bu ñu leen doon misaal julli maanaam julli ci boppam julli juróom ni muy def ci ab jullit nee na day far ay ñaawteefam te nag kafaaratun li dunubin day lakk ay bakkaaram wal maasi ak may yi nga xamante ne da koy may da koy da koy koy dindi bam set wicc kon yonent bi sallallahu alayhi wa boobu moo ko ci moom lañ ko jëlee mu waxaat tamit ci beneen hadis boo xamante ne ba tey abi hurayrata radiallahu anhu moo ko solo assalawaatul xamsa wal jumaatu ila jumaa kafaaratun lima baynahunna maa lam taxsha al kabair am na ci beneen riwaayaat dafa wax ne ini tunibatil kabair mu ni waa julli juróom nee na ak ajjuma ba ajjuma ji delsi dañuy kafaara ay li nekk seen diggante mooy dañuy lakk bàkkaar yu mag lu bàkkaar yi ba mu des bakkaar yu mag yi ci beneen riwaayaat dafa wax moom ni init tuni batil kabair bu fekkee teet nañ bàkkaar yu mag yi bakkaar yu ndaw yi ci des yëpp julli maanaam daf koy far ba mu set wicc kon jullit bi ci boppam war na mu wattu julli te sonne ko te xam ni julli ci boppam comme ni ko suñu waa daan waxe sànq imaadu diin te julli ci boppam moom lañuy jëkk a nit ki bu faatoo li jëfu yëpp li ñuy jëkk a réglé julli la ñuy jëkk a réglé suñu réglé julli bu julli awee yoon léegi naan la ci def lépp yomb waaye bu fekkente ni réglé nañ ko julli nekku ca affaire am yëpp jafe-jafe lay doon. kon ci gàttal mën nañu wax ni julli ci boppam maanaam mooy laissez-passer jullit bi jullit bi ci boppam mooy laissez-passer am nga xamante ne maanaam ci la maanaam wasiila euh, boo xamante ne maanaam léppam mën naa yomb ci ay xisaab yooyu. jullit bi ci boppam assalaatu tuuti lil muslim fi nuurin salaati munaajaati wa sirrun bayna al muslim wa bayna allahi julli ci boppam maanaam dafay jox jullit bi ak leer teyit day déyaale ak boroomam teyit maanaam secret bi nga xamante ne nekk na diggante jaam bi ak boroomam ndax ñëw na ci xadiisul qudsi yonent bi sallallahu alayhi wax ni xusimati salaatu bayni wa bayna abdi nisfayni ne yàlla moo dafa wax ni maanaam séddale nañ julli maak sama jaam bi séddale nañ ne ko ñaari xaaj ñaari xaaj wali abdi ma saala nee na sama jaam bi maanaam ñeel na ko lu mu ñaan rek maanaam boobaa ma may ko bu ne alhamdulillahi rabbil alamin bu ko waxee mu ne xamidani abdi yàlla ni ma de sama jaam bi sant na ma ci julli maanaam xam na ni man maay yàlla kon sant na ma wa salaatu taxmi al abda duxuul al naar te julli ci boppam dafay aar jullit bi ba du tàbbi safara ndax abi hurayrata jël ci benn xadis bu sohayru ibnu ammaar ibnu rawiyata moom moo ko wax ni dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni lan yalija naaru ahadun salla xabla tuluuci wa xabla xurubiha nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni du tàbbi safara mukk képp koo xamante ni maanaam julli na lu jëkk jant bi fenk ak bu jant bi sowee la mu jublu ci loolu mooy yax sidu biha jullik fajar ak jullik tàkkusaan kon loolu nekk na loo xamante nii ay tegtal yu am solo la ñu waxaat tamit ni man yusalli salaatal fajri wa salaatul ishaai fi jamaatin yaxmi nafsahu min duxuli fi jamaatil munaafiqiin képp koo xamante ni maanaam julli nga jullik fajar ak jullik gee ci mbooloo aar na boppam ci mu tabbi ci mbooloom naafiq ci mboolem mbooloom naafiq abi hurayrata radiallahu anhu wax na ni laysa salaatun asxala ala almunaafiqiina min salaatil fajri nee na julli yonent wax na ni déet julli goo xamante ne maanaam moo gën a diis ci naafiqi lu muy jullik fajar ak euh, Aïcha ak julli gee mu ne waxaat ni la walaw yaalamuuna maa fiihima la atawha walaw xabwatan nee na bu ñu xaman li nekk ci jullik fajar ak julli gee nee na kon danañ ko dikkee donte dañuy daw sax wala ñuy raam nee na danañ ñëw ngir julli julli si bu fekkente ne léegi maanaam xam naa ñu delloo kàddu gi suñu ba ci kanam ñu continuer waat bisimilah suñu waadaan euh, Cheikh ci tomb yooyu nga nga ñu indil Eh, lépp aju ci ay aayaat yoo xam ne dafay waral ni eh, julli lu mat a fonk la te lu mat a bàyyi xel la rawatina ahadis yi nga xam ne moom nga indi te yëpp bàyyi ko ci yonent bi salaa salaam mu nekk loo xam ne itam wax dëgg lu mat a bàyyi xel la ndax sëriñ bi tam am njàngaleem ci loolu la tënku ndax mi ngi wax naan wa xaafidan ala salaati annaha xayrul ibadaati fa azim saanaha yow jullit bi na ngay na na ngay sàmmonte di julli waxtu yi ndax kat jullikat mooy jaamu yàlla gi gën a màgg kon nag eh, na nga màggal julli bañ koo caaxaane bañ koo fooyee kon al oustaz eh, Fallou dañuy dañuy siwaat ba tey rek ci ci ci ci solo soo xam ne julli am na ko rawatina ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi jàngalee ci ki nga xam ne sax weddi na warug julli ahkaam yi noonu mu ko indee ci ñaari téereem yooyu muy tasawudu sixaar bi ak tasawudu eh, subbaan bi yoon jërëjëf euh, sëñ bi euh, julli dafa am solo waaye ku ne sëñ Touba julli ndax yaakaar naa ne barab yi mu jaar yëpp dinañ ci ñëw ca kanam ci julli lañ koy xàmmee sëñ bi julli woon na fii julli woon na fële kon loolu rek doy na ñu wax ne solo julli waaye julli sëñ bi dafa jox solo julli solo su am solo da cee soññi murit yëpp ci ñuy julli di joxe waxtu julli. waxuma la sax yi ñu ko julli waaye ñu koy joxe ca waxtu wa am murit warul di yeexe julli warul di sàggane julli jaamu yàlla sax nag waaye rawatina julli ndax kuñ ne koo yaakaar mu ne cheikhul xadim ah te cheikhul xadim jamonoom jëpp taam lépp fu mu dem julli lay njëkk a def bu fekkee doonut waxtu wuñ teree la moom naafila lay njëkk a def kon nag yaakaar naa ne loolu ku aju ci moom war ngaa bàyyi xel bu baax a baax a baax ne kat nit ki bu fekkee danga nga ne moom laa yaakaar moom laa gëm moom laay moom laa moom laay topp ay ndigalam euh, la mu digle def ko war nga koo bàyyi xel bu baax def ko te sëñ bi kat julli la digle te itam sax moom la fu mu dem moom la njëkk a def ba sax tey jii dong firnde la ci euh, yaakaar naa ne julli gum julli woon ca biiru Ndar ña nga koy màggalte jii de 5 septembre. kon sëñ bi dafa soññ jullit ñëpp ci wala murit yëpp ñu jooxe julli waaye nag jooxe ko ca waxtu wa yemul sax nag ci julli farata rek waaye sax naafile yi da cee soññ nit ñi tam ñu ya nga xam ne mooy naafile ya nga xam ne moo topp ca farata ya ñu sàmm ko bu baax a baax a baax. Euh, oustaz junj na ko léegi nee na yunta nee na julli day may ak leer sëñ bii moom la way ci bayit wi wajtahidu fi salawaatil xamsi takun lakum nuurun ka nuuru samsi farlu leen ci waxtu julli juróom bu ngeen ko defee ni ngeen am ak leer gu toll ni leeruk jant bi mu waxaat ba tey ci beneen bayit waalam bi anna afdal taaati salaatuna fi aw awxaati na ngeen xam ne li gën ci jaamu yàlla yi mooy julli ca njalbeenug waxtu wa julli ca njalbeenug waxtu wa kon julli moom bu jotee nañu bàyyi luñ doon def te mu waxaat ne wala tuaxiru salaata amda li wajhi baaxin laa yulaaqi hamda wala tusallu alfarda qabla alwaqti fa inna za min mujibaat almaqti bu leen yéexe julli te tey ko wala tuaxiru salaata amda bu leen yéexe julli te ko ngir jëmmi yàlla nit ki ab jullit warta yéexe julli te tey ko warta yéexe julli te ko xëy na xanaa lu dul ngant te itam ngant moom yonent bi salaa waxoon nañu ne euh, nit ki di teggil nañ ko bàkkaar ci jamono yi nga xam ne lu mel ni day nelaw wala ku fàtte ak luñ ko forcé muy ñett yi nga xam ne yonent salaa waxoon na ne ñooñu kenn du leen bindal bàkkaar waaye daal budul budul ngant moom ab jullit rawatina ab taalube sañu te yéexee julli te itam farata yi nee na buñ koy julli te waxtu wa jotut ndax sunu borom moo ne inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawquuta julli day dañ koo farataal ci jullit ni mu tënku ci ay waxtu nag doonul ne heure bu la neexee ngay julli heure boo fekkente ne bi am nga jot rek julli déedéet waaye nag dafa tënku ci ay waxtu yoo xamante ne ab julli sañu ta toog bañ a julli wala muy julli te waxtu wa jotut wala muy julli te waxtu wa te waxtu wa jotut ndax julli dafa am ay waxtu yoo xam ne dañ koo tënk nekkat suba fii la tàmbalee yam fii tisbaar fii la tàmbalee yam fii takkusaan fii la tàmbalee yam fii timis naka noonu gee naka noonu te lu ci nekk dafa séddalikoo ñaari xaaj muy muxtaar ak daruri julli kon euh, bul ne mukk gee gi dafa dafa guddee waaye naa ko anticiper julli ko te dem bu ko def da ngay bàyyi ba waxtu julli jot nga door ko nga door koo julli sëñ bi waxaat ba tey ne sallul faraida maa tawaabii li wajhi euh, muraayan nahjan nabi taabii julli leen julli farata yi na ngeen koy julli tayit nag toftal yañ ca war a teg yañ ca war a teg euh, ngeen ngeen teg ko ca muy naafile nga xam ne war war nañ ko caa teg ni ki julli tisbaar ku ne xam na ne sopp nañu balaa ngaa julli nga jiital ñaar wala ñeenti rakka ginnaawam noonu bu dee tàkkusaan balaa ngaa julli tàkkusaan nga nga nga nga jiital dawal ay rakka ñaar wala ñeenti rakka waaye bu dee tàkkusaan moom ginnaawam bu dee ci mazhabu Malik kenn du ca naafila ndax dafa bokk ci waxtu yoo xam ne dañuy tere ku ca naafila kon euh, julli lu am solo la te itam Cheikhul Xadim lu mu fonkoon la kon képp kuy tënku ci ku doon taalib Cheikhul Xadim war naa fonk julli war naa fonk julli bu baax a baax a baax ndax julli dafa am solo dafa am solo rawatina jaamu yàlla sax laay wax jaamu yàlla laay wax ndax sëñ bi moom diglewut lu dul jaamu yàlla te teg ko ci sunna jaamu yàlla te teg ko ci sunna ndax loolu dafa doon lu ama am lu am solo ndax yàgg damay wax ne ab taalibe ku ne Cheikhul Xadim la yaakaar fu mu nekk war naa sagal yoonu murit war a génnee wane ne kat yoonu murit kat mooy yoon wi nga xam ne kat ci yàlla la jëm yoon wi nga xam ne kat jëfe ak bàyyi tere ci lañ ko sos ci lañ ko ci lañ ci lañ ko teg waaye teguñu ko ci fo ak i caaxaan ci fo caaxaan bu yàggul rek maa ngi déglu benn borom xam-xam bu mag ñu koy wax sëñ Basiru Mbàkke xel koom muy wax ci lu mel noonu ne bi mu demee euh, gànnaar Mauritanie euh, fa mu nekkoon ci jàng ci université bi dañuy da doon dégg benn naar boo xam ne da doon wax ne. Euh, euh, murit maanaam dem naa Sénégal dégg naa fa kii waaye murit moom yoonu yoonu yoonu sawara la am ku ko ne pourtant Bachir mii de ci yoonu murit la maanaam ci kii ci yoonu yoonu yoonu yoonu murit la bokk mu ne ko ah ki ki sos murit kooku ci ay sëtam la mu ne mu ne ko waaw bi mu ko waxee mu ne ko man damaa dem mu ne ko lag léegi xam nga Cheikhul Khadim mu ne xam naa Cheikh Ahmadou Bamba moom kay xam naa ko wàllu kaamil la nit ku baax la nangam waaye ndekete moom ña mu gisoon ñu daan tuddoo ay murit ñoo yàq deru murit moom xàmmewut ne sax nag Cheikhul Xadim ak murit xamu ci dara léegi euh, bi mu ko waxee charte yi nga xam ne ci la yoonu murit aju mu ne man kat damaa dem ndar dégg gis fa ña nga xam ne ñooy def lu leen neex euh, di di di di naanum ñoll di tuxlu bon di sol ay sagar def lu leen neex ñu ne ay murit lañu moo tax ma jàppoon loolu waaye xaw ma woon ne yoon wi ci nii lay ci noonu lay ci ci nii la tënku. kon ñu gis ne kat Cheikhul Khadim nit ki nag taalibe fu mu nekk war na koo jéema a sagal bu baax a baax a baax ak roy kilifa googee itam nag ci euh, ci ci xikma boobu mu doxale ndax it fajewu ko mer waaye da koo tontu ci xam-xam jàngal ko lan mooy yoonu murit ba ba mujj kooku xam xam kat lan mooy yoonu murit ba lënt-lënt bi amoon ci moom ah, mu mu mu dañ waaye sëñ bi digle na lu baree bare bari ci julli ndax moom ci boppam. moo daan jiite julli ca jàkka ja sëñ bi moo daan jiite julli ca jàkka ja te itam daawut jullee ci këram daawut jullee ci këram moom dong da daan dem ci julli mbooloo ndax ku ne xam na ne julli mbooloo mu ngi gënee julli kenn ñaar fukki garaat ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar loolu yun taasram moo ko wax salaatul jamaa tufaddilu salaatul faddi bi sabiin wa isrina daraja loolu yun taasram moo ko wax moo tax sëñ bi loolu la xamoon ba da daan génn ca mbooloo ma julli bu jullee ba pare sax léeg mu dénk leen ay kàddu yoo xam ne danañ ko danañ ko yóbbaloo. loolu doyut ci fonk gu nga xam ne fonk ne ko julli ak solo su julli am ci Serigne Touba mu sos ay dëkk bu mu dëkk bu mu mas sos rek jàkka moom mooy ne ca penc ma. moom loolu lañ cey xam jàkka mooy ne ca penc ma bu ko defee kër sëriñ ba penc ma kër sëriñ ba ak jàkka ja dangay génn ci kër sëñ kilifa gi rek dem ci jàkka ja julli loolu moom dëkk yi nga xam ne jaar na fa yépp jàkka ja ma nga fa moom moo tabax lu jumaa njaareem ci jamonoom lañ ko tabax te loolu yaakaar naa ne euh, mooy bi nga xam ne def nañ ko fa résidence surveillée ci la nekkoon naka noonu tam jumaay Touba euh, mébétam la woon ndax euh, dafa doon ñaan sunu borom ñu tabaxal ko fa ca Touba jumaa ju joo xamante ne ju mucc ayib la waaye ku gis ñaari jumaa yooyu rek muy jumaay njaareem ak jumaay Touba danga xam ne kat ki doon def lii ak ki def lu lii Euh, yaakaar naa ne euh, fonk na julli ndax ni mu leen taxawoo ak ci jamono jooja na jumaa jooja meloon yaakaar naa ne euh, ku tabax jumaa rek da ngaa soññee ñu julli ku jumaa da ngaa soññee ñu moo tax loolu doy na ca ñu ñu ñu ñu ñu fonk julli te xam ne julli lu am solo la. yemu ci loolu itam wax dëgg ay taalibeem ak i njabootam ak i doomam ak i sëtam tabax nañ ay jumaa yu yéeme yoo xamante ne foo ca dem ci seenub dëkk rek. jumaa nga fay njëkk a gis nga cay gën a gis nga cay gën a gis kon nag jumaa yooyu itam wax dëgg tabaxuñ ko fa rek ngir muy naan ñu naan fay romb naan est-ce que jumaa ji rafet na waaye jumaa buñ ko tabaxee di fa julli mook jàkka di fa julli moo tax ñu tabax ko luñ fa def rek ngir wane doonay doonay lislaam lañ ca jublu waaye euh, tabaxuñ ko rek ngir ku romb ne jumaa ji kat rafet na waaye nag lu mu rafet rafet nañ cee julli ndax dañ cey julli ndax yaakaar naa ne loolu lañ ca loolu lañ ca bëgg euh, naka noonu euh, bu ko defee sëñ bi tabax na ay tabaxlu na tabax na ay jumaa yu baree baree bari ak njabootam naka noonu bayit ñaari bayit a ngi yoo xam ne euh, taalibe bu nekk wala jullit bu nekk war na ko bàyyi xel dafa wax ne wa in ajasta an xiyaamin wa fi leyli wa nahaari ma fi'li alxaraam wa tatub bi tarki wa nadaama fa anta maxruumun lada alxiyaama bu fekkee da ngaa bañ ne kat doo taxaw di julli guddi doo woor benn bëccëg ah, ànd ak di def lu araam te tuuboo ko ba faatu kooka day ku ñuy xañ la yéen ma ne sunu borom ku ñuy xañ àjjana la yowmal am te daana wax ne itam rajaau jannatin bila taaati bi sunnatil maahi xururun yaati yaakaar àjjana te tegoo ko ci jaamu yàlla loolu day ah, waru dong lay indi waru nag mooy nax sa bopp nax sa bopp lay indi ndax kuy yaakaar àjjana eh, itam da ngay dangay dangay dangay ngay da ngay da ngay da ngay da julli da nangoo jaamu yàlla ndax eh, àjjana àjjana yàlla la waaye dafa tënk nekkat kat ku def lii mën ngaa àgg ci àjjana jooje kon nag koo xamante ne nee na kat eh, dafa bëgg bëgg dem àjjana waaye nag nanguut jaamu yàlla loolan boppam lay nax ndax sëñ bi loolu la digle sëñ bi loolu la digle digle dafa digle ñu jaamu yàlla di julli di def yi nga xam ne moom la lislaam santaane waaye buñ ne mukk sëñ Tuubaa amul moroom wallaay amul moroom dëgg la ku baax la waaye nag dafa digle aw yoon woo xam ne képp koo xam ne moom ngay aju ci moom ne moom nga yaakaar noonu nga war a jaar te yoon woowu mooy jaar ci siraatul mustaqim di def li nga xam ne ndigle yi nga xam ne sunu borom digle na ko di jéem a teet tere yi nga xam ne suñ borom tere na ko di julli waxtu juróom di julli waxtu juróom ndax yaakaar naa ne euh, amook jot rek coono bi ñu sonn ci jumaa yi di ko tabax ak jàkka yi yaakaar naa ne ku ca julli lañ ci bëgg. Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu daana insister daana sonn ci di bañ koo xamante ne ñuy def dara di bañ ñuy def dara ginnaaw bu waxtu julli jotee daana wax ne. Euh, man shagalathu salaatu an al asyaai bi biha wa bil asyaai wa man jaxalatuhu l ashyaau an salaati fala yantafiu biha wala bil yi loolu boo demee ci majmuwa ba euh, safha 38 ma nga ca wax jooju manga nga ca nee na képp koo xam ne euh, julli daf koo tere daf maanaam da julli daa jot mu bàyyi mbir ya dem julli ji euh, dana jëriñu ca julli ka dana jëriñu ca mbir ya waaye képp koo xam ne itam nag mbir yi soxlay àdduna yi da koo teree julli du jëriñu ci julli ga du jëriñu itam ca soxlay àdduna ya kon euh, julli dafa am solo ndax sunu borom sax dafa digal euh, buñ balaa ñoo def dara bu waxtu lu mel ni julli àjjuma juma bu jotee ñu bàyyi luñ doon def te dem julli ci waaye dafa dafa digle itam nag bu ñu paree ci julli ga ah, ñu dem nag wuti wërsëg fa izaa qudiyati salaatu fantashiru fil ardi wabtaxu min fadlillah kon euh, julli lu ama am solo la yaakaar naa ne euh, solo si moom mëneesu ko tënk ci benn jataay te itam Cheikhul Khadim ni mu ko jàppe woon doon ci soññ doon doon ci soññee yaakaar naa ne mëneesu koo lim ci benn jataay xam naa ne kon dañuy delloo kàddu gi rek incha allahu rabbi ba mu dellusiwaat siwaat sëñ bi jërëjëf euh, Cheikh Mouhamadou Fadil Sarr ci tomb yu am solo yooyu di fàttaliwaat bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci seen télévision Mafatihul Bichri TV na ñu ngi ànd ak ci seen plateau spécial préparation julli géej gi nga xam ne moom la ñuy amal ca Touba Las Vegas 21 septembre ci université bu Nevada. Euh, euh, sëñ Fallou li nga wax lu am solo la ndax barab yi nga xam ne yëpp sëñ Touba jaar na fa liñ koy xàmmee mooy mandarga moo xamante ni dañ ko faa def muy jàkk wala juma sëñ bi jullee na fa kon loolu di wane ni kon kooku ku fonkoon julli la euh, kon sëñ Cheikh dañuy euh, siwaat rek ci ahadis yi nga xam ne ba tey rot na ci julli nu su ko war a jàppee ak jullitam nuñ ko war a fonkee. waaw bisimilah sëñ Wadane comme loolu nga ko waxee julli lu am solo la oustaz ñoo ngi lay sant baax vraiment wax ji leer na nañ ndax alxuraan ci boppam moom mësul deñ ci saar yu bari di àddu ci julli ndax yàlla subhaanahu wa taala mu ngi delluy waxaat ni ci alquran baada auzu billahi min asheytaan rajim ci sortu nisa aya 103 inna salaata kaana ala almuminina kitaaban mawquuta nee na julli ci boppam dafa nekk ci jullit yi muy waxtu woo téere boo xamante ne maanaam dañ koo dañ koo gàppal comme ni ko saas waxe sànq maanaam du caage ne heure ba neexee nga julli heure bi dafa am ay waxtu yoo xamante ni maanaam moom la ñuy wax ni waxtu yi heure yi lañ jul am na moxtaar am na duróor yi boo loroolee nga dem ci duróor yi waaye moxtaar mi moo gën mu yonent bi sallallahu alayhi waxaat ni xamsu salawaatin katabahunna allahu ala ibad ala al ibadi fa man jaa bihinna fa lam yudayac minhunna cheyan istixfaafan bi xaqihinna kaana lahu inda allahi ahdun an yudxilahu aljanna mu ni yoon bi sallallahu alayhi wa dafa wax nii maanaam juróomi jullee ngi nii yoo xamante ni yàlla daf leen koo bindal da ko bindal ci jaam yi pour ñu war koo julli nee na képp koo xamante ni maanaam juróomi julli yooyu maanaam andi nga ko jullee ko comme ni ko yàlla waxee te sànkoo ci dara nee na bañ ko woyefal ci seen ak dara dara yàlla nee na kooku man garanteel naa ko maanaam am na kóllëre fa yàlla maanaam pour ma dugal ko àjjana kon daanaka xam nga loolu rek lu rëy la wax dëgg yàlla ku julli julli juróom ci ni ko yàlla waxee nga bañ koo woyefal yàlla gaara garante la àjjana te ab jullit yaakaar naa ni bokk na ci li muy sàkku àjjana waaye mu wax ni wa man lam yaati bihinna fa laysa lahu inda allahi ahdun inchaa adabahu wa inchaa adxalahu aljanna waaye képp koo xamante ne maanaam dikkewul àqi julli ci ni mu waree te julleewul julli juróom yooyu nee na nag kooku dañ koy bàyyi ci coobale yàlla bu ko neexee yàlla mu mbugal ko bu ko neexee mu tàbbal ko àjjana hadis boobu abu daawuda moo ko génnee ak nasaayu ak ibnu maaja ñu ñëwaat ba tey ci ay alxuraani yàlla subhaanahu wa taala mu ngi wax naan utlu ma uxiya ilayka min kita min alkitaabi wa aqimi salaata inna salaata tanha an alfaxshaai walmunkar wala dikrullahi akbar wallahu yaalamu ma tasnaun ci sortu ankabut aaye 45 nee na uttulu ma uxiya ilayka min kitaab min al bi nee na jàngal li nga xamante ni maanaam wax yu nañ la ko ci yow mu jóge ci téere bi lu mu doon mu ne wa aqimi salaata na nga taxawal julli saxal julli daal inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar ndax julli ci boppam day tere ay ñaawteef ak yu bon waaye mu ni wala dikrullahi akbar waaye tudd yàlla de moo gën a màgg wallaahu ya'lamu ma tasna'un te yàlla de xam na li ngeen di def kon mu mel ni aaya boobu lu soññee ci julli la mu waxaat ci sortul maarij ni walladina hum ala salaatihim yuxaafizuun yàlla nee na ñi nga xamante ne maanaam ci seenu julli dañ koy wat di sàmmonteeg àqee waxtu wa muy ko julli ak di sàmmonteeg maanaam nañu war a jullee niñ digle pour ñu jullee nee na ulaayika fi jannatin mukramoon nee na ñooñu nga xamante ne sàmmontañ nañu ak julli julli juróomi ak waxtu ya ak yëpp ca nañ ko war a jullee nee na ñooñu day maanaam ci àjjana ci ay àjjana la am yoo xamante ne maanaam dañ di teral ay àjjana la wax néewul jana ay àjjana yoo xamante ne dañ di teral kon julli ci boppam. képp koo xamante ne maanaam ab julit nga tey woote woo taalibab Cheikhul Xadim war ngaa gën a fonk julli ndax sëñ bi ci boppam moom diine rek la ñëwoon pour fekkan mu ràpp mu ñëw léegi maanaam summi mbubb mi mu ràpp mi mu yoroon sololaat ko meneen mbubu ndax dégg nga ci woy mu naa lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xaraaway ni Ahmadu kon ñu war a xam ni képp ko xam sëñ Tuubaa nga xam nga xam ni léegi. lislaam sëñ tubaa lislaami kese la ndax li muy def lépp alkitaab wa sunna génn ko dafa ñëw nag di yeesal kuy yeesal moom maanaam fokk nga am méthode yoo xamante ne moom nga yeesale te julli ci boppam li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni assalaatu imaadu diin fa man taraka fa man tarakaha faqad hadama diin nee na julli ci boppam maanaam mooy kenol diini képp koo xamante ne bàyyi nga ko nee na màbb nga diine kon yàlla na ci yàlla kon xam nga loolu lu doy waar la kooku addis boobu bay xaq yi moo ko solo yonent bi biñ ko laajee woon ci ni ko ayu amalil afdal ban jëf moo gën dafa waxoon ni asalaatu li waxtiha julli ci waxtoom kon ñu war a xam ni julli ci boppam lu am solo la te Sëriñ Tuubaa ci boppam moom yonent bi rekk la doon liggéeyal léegi liggéeyal gu mu doon liggéeyal yonent bi nag ak fonk gi yonent bi wax ni julli ni mu am solo moom mu ñëw léegi tegan tànk foofu. nga xamante ni maanaam wax na ci bari yoo xamante ni maanaam comme ni ko ol ustaas leerale du ma ci dellu julli yi mu wax sart yi nga xamante ne lañ ci ne lañ ku ñu war a ray ak ku ñu warta ray ak ak koo xamante ni maanaam ci kéefa lañ koy rey yooyu yëpp solo su am julli moo tax ci téere yi tasawudu soxaar sixaar ak tasawudu subaan kon xam ni loolu lu am solo la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man xaafasa ala man xaafasa ala xamsin bi ikmaaliha ala xamsi salawaatin ikmaaliha wa mawaaqiitiha kaanat lahu nuuran wa burhaanan yowmal qiyaamati wa man dayaha xosira ma firawna wa haamaan waliyaasu billaah yonent bi nee na képp koo xam wattu nga juróomi julli ci ak matam ca laab gaag yépp ak waxtu ya yañ ko gàppal yi ñu war a julee nee na kooku maanaam am na ak leer fa yàlla te it am na aw lay bu yowmal xiyaamee kon loolu lu jar a sonn julli loolu rek jar na ñu bañ a faat julli tax teg suñ tànk xar suñ tànk tubéy pour mën a julli waaye lam ca teg mooy mu ne man dayaa képp ku sànk julli ku bàyyi julli bañ ko julli nee na kooku xussira maa firawna wa haman nee na kooku daal buy dekk yowmal xiyaam mook na ak haman ñoom lañu dekkandoo yàlla na ci yàlla musal moo ko solo yonent bi sallallahu alayhi wa waxaat ni miftaaxul jannati asalaat maanaam caabi àjjana mooy julli maanaam caabi ji nga xamante ni moom ngay moom ngay jël ni dañet ubbi dugg nee na leel kooku mooy julli kon julli ci boppam lu lu ñu war a jox gëddaam la lu war a am solo la ñun ñi nga xamante ne nag maanaam dañuy woote ni Cheikhul Khadim moom mooy mooy moom moom lañ yaakaar nañu jàpp ni julli ci boppam sëñ bi ku ko fonkoon la ku ko bàyyi woon gëdd la kon ñun tamit xam naa ñu bàyyi ko solo noonu kon xam naa ñu delloo kàddu gi sëñ waa daan ba ci kanam. Hmm. jërëjëf euh, al oustaz euh, Cheikh Diouf ci euh, leeral yu am solo yooyu kon ñu ñëw si sunu tomb bu mujj kon sëñ Fall bu ñu wàcc see ci julli gi nga xam ne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu julli woon na ko ci biir géej gi nga xam ne ñu ci bari sax dañ koy jàppee kéemaan waaye moom ndigalal yàlla da koo jaraloon loo xamante ni donte bàkkanam bi sax da ciy des jaral na ko kon nag yan bind lañ mën a jàngee ci julli gi nga xamante ni sëñ Touba julli woon na ko ci océan Atlantique bi. jërëjëf sëñ bi Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ni ko waxe bëgg gum bëgg sunu borom ak cofeel goo xam ne am na ko ci sunu borom ak jeex goo xam ne léppam da koo jeexal seyal ko ci sunu borom loolu euh, moo ko yóbbee mu jullee ci ci géej googe ndax ku ne xam na ne ni ko waxee jëfe ndigal la jëfe ndigal la. Euh, moo tax ba nga xamante ne bii te ku ne xam ne tubaab yi lépp pexe moo xam ne amoon nañ ko ba gàllankoor ko euh, euh, xamoon nañ ko rek danañ ko def pour gàllankoor ko waaye gis nañ ne kat kii kat ku bëgg su ku bëgg yàlla la ku mën a jëfe ndigal la ku fonk julli la fonk julli moo tax daawut julli sax nag te jàpput waxtu wu nekk daf koy daf koy jàppal moo tax Euh, moo tax ba nga xamante ne loolu am na ca euh, ca njàpp ma lañ ko tàmbalee gàllankoor mu ci julli géej bu ñu demee ci Jasaawu Shakoor sëñ Moussa Ka euh, mi ngi koy nettali sëñ bi dafa waxoon ne sëñ Tuubaa moo wax bayit bi sëñ Moussa Ka indiwaat ko ci Jasaawu Shakoor man yulxini fil bahri rawma gurbati fa zaadani min al ilaahi qurbati dañ maa yóbbu ca géej ga ngir bëgg maa tumuraankeloo bëgg maa def ab doxandéem waaye loolu dafa maa delloo ak jege ci sunu borom ndax yaakaaroon nañ ne moom bu ñu fexee ba gàllankoor ko ba julliwut rek eh, bu boobaa danañ am danañ am ci moom lañu bëggoon waaye gis nga daf ko dolli jege yàlla jege yàlla ga moo tax eh, jëfe ndigalu sunu borom ak fonk gum fonk julli moo taxoon mu daal di mu daal di julli ca géej ga ca la sëñ musaaka di wax ne keroog la am maqaama Ibrahima fii baxri ma yomba la jël na réew ma keroog la gaal ga daw ba wàllu tisbaar muy jàpp ab madam bu sew dal di fa jaar dikk taxaw fa kanamam dal koy laal bamba fasaat njàpp ma dal di xam xaal ba muy masa madam ba delsi laal ko ne tuuti kon mu takk far baxal ko ndax euh, booba dafa ànd ak dafa ànd gaa yi badar ye ñoo ko booleeg der ba lal ko ca peex ma te demul ca bal ba kon ahlu badrin ñoom ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko lalal euh, kii ba ñoo ko lalal der ba baam Bamba daal di jàpp julli tisbaar gaa yi ba dar maa moomu lii doyug waar kon euh, sunu borom euh, gëm sunu borom rek mooy li wóor kon bëgg sunu borom subhaanahu wa taala gi nga xam ne bëggoon na ko moo taxoon faat julli loolu itam nag képp ku ko aju ci moom war nga koo war nga koo war nga koo roy ci loolu moo tax bëggutoon a faat julli ba tax mu julli ca géej ga. dafa jébbaloon léppam sunu borom léppam daf koo jébbaloon sunu borom subhaanahu wa taala loolu nag da cee niir yonent yàlla Ibrahim ba sawara wa lakk ko niir ci yonent yàlla Muusa ba géej ga labalu ko ndax jébbal bàyyee sa bopp ak yàlla rek mooy li wóor ndax sunu borom moo ne wa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila llahi aqibatul umur Luqmaan aaya 22 képp koo xam ne jël nga say mbir jox ko yàlla rafetal jàpp nga ci buum gu gi ba jàpp nga ci buum gu dëgër gi sunu borom itam waxaat ne wa man yargab an millati ibrahima illaa man safi nafsuhu wa laqad tafaynaahu fi dunya wa innahu fi l la min as is qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu rabbil alamin suuratu baqara kon jébbal sunu borom comme ni ko yonent Yàlla ibrahim defoon ba sawara sa lakk ko ba sunu borom ne ko xul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ah, noonu na ko la Muusa defe woon ba sunu borom musal ko ca lakk googee ca lab googee ah, sëñ Tuubaa mi wax wajahtu wajhiya saa xurbin millaahi bi jaahi ahmada sa shawqin ilallah sama jëmm daal dama koo jublee suñu borom rek moo tax bëgg gum bëgg suñu borom loolu itam nag jullit bu ci nekk war na koo rey Cheikhul Xadim mooy kat yàlla jaral la lépp sa lépp nga joxe ko sunu borom subhaanahu wa taala ba tey euh, jëf dina màgg am daraja am maqaama ci fañ ko jëfe ak nañ ko jëfe fañ ko jëfe ak ñañ ko jëfe ak jamono jañ ko jëfe ku ne xam na ne loolu moo tax julli ci géej gi am solo ndax fañ ko jëfee mooy ca géej ga yaakaar naa ne kenn mësu faa julli ku dul moom nañ ko jëfee nam ko defee itam ndigalul sunu borom waxtu jot na xoolu ca lenn mu sànnib deram daal di julli julli ca géej ga ba ca des itam place bañ ko defee muy ca géej ga ko wax naa ko ak jamono jam ko defee ndax booba mën na ne amoon na ngànt ci ci julli waaye nag euh, li ñuy wax xasanaatul abraar sayaatul muxarrabin am na loo xam ne moom euh, fi mu toll ci sunu borom sañatu ko moo tax euh, mu moo tax su sunu borom subhaanahu wa defal ko itam ndam lu rey loolu mu am ca ca ca ca ca julli googu. tey ni ma ko waxee léegi julli ci géej mësee su koo gis ci kenn xamuñ ko kenn ku dul moom loolu nag day tax ëllëg yowmal xiyaam géej gi dana ko seede. ndax ku ne xam na ne euh, mbir yëpp dañuy seedeel sunu borom subhaanahu wa taala kon euh, julli dana comme dana géej dana seedeel ne kat kii mas na koo jullil te itam nag dana puukare julli gi nga xam ne sëñ bi jullee ko julli na ko ci ci ci ci géej gi. dafa mel ni ñu ngi may signalé ne waxtu yi xaw naa xooj ci bu ko defee xam naa dañuy tënk rek te tënk foofu delloo kàddu gi incha allahu rabbi. jërëjëf euh, al oustaz Mouhamadou Fadil Sarr ci noonu nga daanelee muy kon bu ëllëgee géej gi kon dana seedeel sëñ Tuubaa ni julli woon na ci ndax uh, noonu ko woykat bi waxee ne Muusa wa Ibrahimu lamma sallama salima min al igraqi wal ihraaqi muy misaal comme li nga wax léegi yonte yàlla Muusa uh, bi mu jëbbalee léppam yàlla mucc na ca lab ga waaye yonte yàlla Ibrahim bi mu jëbbalee léppam yàlla mucc na ca lakk ga kon Seexul Xadim tam bi mu jëbbalee léppam sunu borom tam mujj na ci lab ci géej ak lab ci leneen lu dul géej kon al Oustaz Cheikh Diouf nga tënkal ñu rek julli géej gi gi ana loolu lañ ci mën a jàngatee. waaw julli géej gi euh, sëñ wàll liñ ci mën a jàngatee bari na waaye mën nañ ci tënk rek ci ay point tuuti xam nga sëñ bi ci boppam li ñu waxoon ni euh, nawetumaayu jaddi du jooju mu waxoon mooy alxuraan ak euh, sunna rek maanaam moom la foofu la tegoon tànkam ndax ay bi ma jàngoon sànq ne inna wastainu bis sabri was salaati xam nga kooku julli géej gi boo ko xoolee rek maanaam mën nga ko tënk foofu ndax xam nga ni biñ ko jàppee war ko yóbbu Gabon wala fañ ko war a jëme ca île yooye xam ko ak muñ moo tax mu nangu ñu jël ko yóbbu waaye julli gi ci boppam maanaam dimbanikoo gi nga xamante ne maanaam dimbanikoo noo muñ tamit moo tax xam ne léegi maanaam donte doon julli ko ca fekk fekk ko ca waaye na julli ngir yàlla rek maanaam foofu la jëfandikoo loolu ndax fi nga ko jëkk a commencé laata moo dem foofu xam nga néeg bu lëndëm bi ñu ko dugaleen foofu maanaam mu xalaatul lenn lu may julli ñaar rakka xam nga kooku xam na ne kooku ku am tawakul la ku amit maanaam euh, tawxiid la kon léegi nun ñun ñi nga ne en tant que talibé li ñu war a def maanaam mooy roy ko ci loolu te xam ni moom jàpp moom wóoroon na ko ni téye gi ñu ko téye mu ngi dem te dana dem te dana liggéeyal yonent bi ndax bi mu naan euh, euh, allamani rahman fi safina bi annani xadimu sil madina loolu ku jëm fi barab léegi maanaam te xamoo loo fa fekk doo ko wax waaye comme wax na loolu kon xam nañu moom yaqiinam ak tawakulam ak maanaam ak ak ku bëgg bëgg julli ba ak bëgg jaamu yàlla maanaam moo ko jaralan loolu maanaam ba mu ne naa ko def ba lu ma ci fekk fekk ma ca waaye mu def ci am ca ndam loo xamante ni maanaam dootul fay ba mukk ilaa yawmal xiyaamati kon loolu sëñ waa daan loolu lañ ciy jàngee kon en tant que taalibe bi ñun tamit eh, war nañu roy loolu war a xool li sëñ bi léegi lu ko jaralan léegi manaam mu jël ab dërëm sànni ko ci géej ñun tamit war noo jaral léegi maanaam no dagg nelaw yi dagg yitte yi lépp pour def ko kon daal xam naa ci gàttal comme waxtu dañoo tënk loolu lañ ci barkeeloo asalaamaaleykum. jërëjëf allo oustaz Cheikh Diouf kon euh, Cheikh Mouhamadou Fadil Sarr sa kàddu gu mujj ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci seen télévision Mafatihul Bichri TV. jërëjëf suñu waadaan kàddu gi mooy di dellu di ziar mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy teewlu seen télévision Mafatihul Bichri TV di itam di leen wax rek. Euh, sëñ bi moom mu ngoogu julli lim ko jaraloon yaakaar naa ne ku ci nekk war na ko caa war na ko caa roy def ga nga xam ne nag moom lañ koy defee itam ca barab boobu loolu itam lu am solo la lu am solo la te moom la ñuy lu am solo la ay mbokki jullit def di ko defee foo xamante ne mën naa ne jullit ju julli tumuranke woon na fa. julli tumuranke woon na fa ndax man naa am barab bañ koy defee euh, bu fekkee euh, julli danañ fa danañ fa julli mën naa am ne ñoo fay njëkk julli wala ña fay julli du ñu bari kon nag loolu lu ama am solo la loolu yëpp day dellu ci wax ja sëñ bi waxoon rek inni uxaatibu nasaara turra fi ardihim li malikil mutarra ndax xitaab bi ku ne xam na ne euh, xitaab bi day wër day wër alxitaab ku ne xam na ne ak la caaju yëpp xam naa ne waxtu yi moo tënk waaye incha allah rabbi dañuy rafetlu daal jataay bi di rafetlu itam seen suñ télévision Mafatihul Bichri TV ak jéego yi nga xam ne mi ngi koy def ci lislaam di sant itam suñu waadaan ci yi nga xam ne yëngu yi nga xam ne moom la ko ci defal di sant itam mbokk mi nga xam ne moom lañ seqaloon jataay bi muy al oustaz Cheikh Diouf di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yóbbu ñu ci bis bu màgg boobee ak jàmm ñu def ko ci jàmm ndaje ceek am ci tawfiq ndaje ceek ngërëmul Cheikhul Xadim wa ma dalika ala allahi bi asis salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullah al oustaz Mouhamadou Fadil Sarr kon sëñ Cheikh sa euh, looy tàggatoo ak bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci seen télévision Mafatihul Bichri TV. waaw kon sëñ Wadane li ñuy tàggatoo mooy xanaa di sant ginnaaw bu sant yàlla ba pare di sant tamit maanaam taxawaay yi nga taxawoo ak taxawaay bi nga xamante ne Mafatihul Bichri TV mu ngi ko taxawee. te yow nga représenté ko fii wax dëgg yàlla lii diine lii dong moo moo moo ko yaatal. ndax comme ay moyen la yoo wasila yi am yi nga xamante ne maanaam pour euh, jëfandikoo ci lislaam yaatal ko te moom moom doxin woowu lay doxee kon li ñuy wax daal mooy ñaan yàlla yàlla def la ci ndam te mbokk yi nga xamante ne maanaam ñoo ko seetaan ñuy ñaan tam fu ñu toll ñuy ñaanal yàlla ñuy ñaan ñu ñaan leen yàlla yàlla defal leen ci ndam ba li ngeen def léegi maanaam mu dem ba yaato yaatu ba njariñ li gën yaatu bu baax a baax te ñu xam ni tamit comme ni ko oustaz Fallou Sarr waxee euh, barab boobee nañ fa jullee julli maanaam seere ya ak asamaan si ëllëg léegi maanaam yooyu yëpp témoignage ñu fay def loolu rek maanaam jar na ko kon njariñ loolu yàlla na law ba bawan ci àdduna bi ba xéewal am fépp ba nga xamante ni maanaam diine dina yaatu yaatu goo xamante ni maanaam danañ ni wax dëgg yàlla média yi mu ngi yaatal waaye mu gën a yaatalaat bu baax kon alustaas yow itam ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm ci affaire yi vraiment leer na naññi xam naa ñoo ngi ñaan yàlla yokk xam-xam bi te defal la wér euh, ustaas yow tamit suñu waadaan wax dëgg yàlla ñoo ngi lay sant bu yàlla yokk la tawféex defal la jàmm te télé bii ni nga ko représenté nga am ci ndam kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatu. jërëjëf al oustaz euh, Cheikh Diouf jërëjëf al oustaz Mouhamadou Fadil Sarr euh, kon bokki jullit yi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel ci seen télévision Mafatihul Bichri TV lii mooy plateau spécial bi nga xamante ni moom lañ leen indiloon ci préparation màggalu julli géej gi nga xam ne moom la ñuy def 21 septembre Touba Las Vegas ci Nevada di leen jox rendez-vous kon incha allahu Las Vegas ci université bu Nevada wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين من قال ذكره الأمين لكربلي